aousubillah min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa xadimihi wa mawala wajal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalib yi topp seen télévision Mafaatihul Bichri international ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaaro di leen jéggalu bu baax a baax te di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi di màggalu Kazu Rajab yëpp di bi ci Cheikh Mouhamadul Fadil radiyallahu anhu leen xamal ne tey ñu ngi fii ci kër Soxna Mame Bousso Tamba Soxna Mame Bousso moom sëñ fàllu ñu gën ko xam si moom Soxna Mame Bousso Tamba ci kër sëñ Alhaji Bousso Tamba ñu ñëw fii fekk fii doomam ju baax ji sëñ Alhaji Bousso am sëñ Fallou Bousso Tamba ñu war a tëj li nga xam ne mooy kaamil bi te mooy xatmu kaamil bi ñu ñëw fii tey teew ci kanamam ngir war leen koo jotali muy li nga xamee ne ni màggalee Kazu Rajab gi te sëñ bi joxe ci ndigal mooy jàng alxuraanul karim jàng ay xasida bernde loolu moo nekk ci kër gi moom lañ xëyee tey jii ba jàng nañ kaamil ba toll ci xatmu bi xam naa incha allah dañuy jox sëriñ bi kàddu gi rek mu jàng xatmu bi aouzu billahi min asheytaan irrajim <coughs> bismillahi arrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad hmm. bismillahi arrahmani irrahim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 aw maddin aw tashdidin aw hamzatin aw jazmin aw i'rabin bi gayri makan faktubhu minna ala altamami walkamali walmuhadabi min kulli alalhan faghfir lana ya rabbana ya sayidana la tuwaxisna ya mawlana warzuqna fadla man qara'ahu muaddiyan xaqahu ma alaadai walqalbi wallisan wahab lana bihi alxayra والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان am minna min aadabi alqabri wa min suali munkarin wa nakirin wa min akli didan wa bayid wujuhana yowma albaas wa atiq riqabana min anniran wa yammin kitabana wa yassir xisabana wa saqil misanana bilxasanat wa sabit aqdamana ala alsirat wa askinna fi wasati aljinan warzuqna jiwaar sayidina muhammadin alayhi alsalatu wassalam wa akrimna biliqaika ya dayyan istajib du'aana bi xaqi tawreeti wal injiili wal zabuuri wal furqaan a'tinaa jamiica maa sa'alnaaka bihi fi sirri wal i'laan wa zidnaa min fadlika alwaasici bi juudika wa karamika yaa rahiimu yaa raxmaan allahumma salli calaa sayyidinaa muhammadin saahibi shariicati wal burhaan bi raxmatika yaa arxama arraahimiin allahumma anfacnaa warfacnaa bilqur'aan allahumma anfacnaa warfacnaa bilqur'aani alcaziim wa baarik lanaa bil aayaati wa dikri alxakiim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 wa ala sirati nuura wa ila aljannati rafiqa wa baynana wa bayna annaari sitran wa xijaaba wa baynana wa bayna alkufri sitran wa xijaaba wa baynana wa bayna alfaqri sitran wa xijaaba wa baynana wa bayna alcharri kullihi sitran wa baynana wa bayna alcharri kullihi sitran wa xijaaba wa ila alxayrati kulliha dalilan wa imaama بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن wa adxilna aljannata bi shafaati alquran warfac darajatina bi fadilati alquran wa kaffir canna sayyi'aatina bi tilaawati alquran yaa da alfadli walixsan allahuma arzuqna bi kulli xarfin min alqurani xalaawa wa bi kulli kalimatin karaama wa bi kulli aayatin sacaada wa bi kulli suuratin salaama wa bi kulli juz'in jazaa'a allahuma arzuqna bilalifi ulfa wa bilbaa'i baraka wa bittaa'i tawba wa bithaa'i sawaaba wa biljimi jamala wa bilxaa'i xikma wa bilxaa'i xillaana wa biddaali dunuwa wa biddaali daka'a wa birraa'i rahma wa bizaayi zulfa wa bisiini sanaa'a wa bishiini shifaa'a wa bissaadi sidqa wa biddaadi diyaa'a wa bittaa'i tahaara wa bidgaa'i zafara wa bilcayni cilmaa wa bilgayni ginaa'a wa bilfaa'i falaaxa وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفة لطفاء وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين آمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه وبركة ما تلوناه هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين آمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه وروح ونور ما تلوناه إلى روي عبدك وخلك وحبك وخديم رسولك وخليله وحبيبه أحمد بن محمد بن حبيب الله وإلى روح ولده ومريده الصادق الشيخ محمد الفاضل وإلى أرواح آل بيته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 اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول عبادة له تبارك وتعالى مع خير رسول والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل ونعم رب العالمين بحق وجهه أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يقبله مني بقبول حسن بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين أعوذ بالله من الشيطان وطيب الممر كالأوطان بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان الحمد لله الذي أخرجني من الأعادي والأداء والشجن وأفضل الصلاة والتسليم على الذي خدمته تعليمي على الذي أورثني كتابه وقاد للتاليف والكتابة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل هذا وإني حامد وشاكر لمن به تطيب للمشاكر حمدت رب الله رب العالمين حمدت رب الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين شكرته بخدمة المشفع مستغنيا بسره عن مدفعي مدحت خير الخلق من محرمي إلى انتصاف العام ذا تكرمي له امتداحي لجماد الثانية منه وقاد لي قطوفا دانية له صلاتي وسلامي من رجب لخدم ذي الحجة نعم المنتجب bismillahi irahmani irahim wa sala allahu ala sayidina wa moolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima hada nuuru daarayni fi xidmati alxaami an ilaarayni bismillahi irahmani irahim wa sala allahu taala ala sayidina wa moolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa taqabal minni qawli fi shuruci hada bismillahi bilhamdi bismi ilahi maliki illahi alkarim sharactu macsuman wa wajhahu arum sa'altuhu wa qaada lilqur'ana wa kullu ma minhu talabtu ana ملكني غير الذي قد باع عني وفيه قد أطال الباع أذهب ما عني باع لم يرد فيه إقالة فلا لي يرد لم ينحني وليس ينحو أبدا لجهتي شخص أبى أن يعبدا لي يقود ثمني إلى الجنان وفي الجنان خير باق ذو امتنان أنالني منه العظيم الأعظم ولا يلاقيني امرؤ تعظم هديتي منه ومن خير الورى قادت لقلبي ويمين السورى بارك للنافع في كليتي qawli wa fi'li xuluqi an niyati adhaba ma lam yarda li li gayri bi gayri raddin lii wa abqa xayri lahu xitaabi shaakiran la shaakiya wa sayara lasi qalaani baakiya xafiztu dikraka bi qalbi wa yadi yaa baaqiyan abqaytani bil afyadi mahawta an yaqsidani shaytaanu yaa man lahu alxiyaamu wal awtaanu duuri wa maa li ixtaarahu allahu alkarim qad saanaha wa li yaquudu ma aruum bi sharxi wa tiini wa suurati alalaq salli ala fatihi ma qablun galaq sayidina muhammadin wa sallimi wal ali wal ashaabi wa asim qalami afuwu ya ra'ufu salli abada wa salliman ala lasi sabqu bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi fi lhaali wal maali bi surati alqadri wa xaqi albayina salli ala nadbin olaahu bayina sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi fi lhaali wal maali ya malika almulki bi xaqi zalzala salli ala man liya qaada nuzula bila tazalzulin wala jawlin wala dulmin waxad kafaytani taqawula sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi fi lxaali walmaali ya rabbi dal jalali wal ikrami salli bi taslimin wa bixtirami ala annabiyi dil mazaya ahmada wal ali wa sahbi wa da saaya ahmada bil aadiyati wa bi xaqi alqaaria salli ala si sabqi wal musaaraa sayyidina muhammadin yaa muqsitu wal aali wa sahbi allazina aqsatu jaamiu yaa ganiyu anta almugni salli bi taslimin ala almustagni bika bi aalihi wa sahbihi alkiram wa qud lahu binnadmi daa xayra maraam wa bittakaasuri wa xaqi alasri salli ala man jutta lii bi nasri bihi bi gayri aafatin wala kadar wa salli man alayhi mujri alqadar bi aalihi wa sahbihi ya maaniu ya xayra man ardaahu abdun saaniu ya man lahu ismu faacilin min addarar wa qad kafaytani adaahu walgarar salli bi taslimin bi xaqi lhumaza ya man kafaaniha wal afdalu maza ala annabii muhammadin wal aali wa sahbihi fi lxaali walmaali ya muctiya annuuri bila ufuuli salli bi taslimin bi xaqi lfiili ala annabii warrasuli ahmada wal aali wa sahbi wa umri ahmada bi xaqi ma anzalta fi qurayshi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 يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجور كسري يا ربنا وجه لغير الكافرين بلا مضرتي بحق الكافرون وارث يا بديع أنت الباقي لك الأراضي السبع كالطباق صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه واجعل حروف ظن نظمي للخيرات من خير ظروف واجعل بهيضا نسمك الخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر وتبت كفا أفئدة الحساد والأكفا إلى سوى نحوي وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صل بسلام على الذي فاه بأحسن كلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفنا بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من خلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف من تهي الحروف بشارة ينمو بها معروف بكل حرف من تهي الحروف بشارة ينمو بها معروف بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واشكر جميع أعمالي وارفعها إليك خالصة مقبولة آمين شكور رافع شكري لرب كريم كان شكارا وأرتجي منه في الدارين أبكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وشكارا ودكارا وجهت وجهي في شهر النبي سندي للأكرم الرافع الوهاب شكارا رجوت منه تعالى شكره عملي ورفعه اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يمحو الزلات جملتها عني وتسخيره للدهر كفارا إني أخاطبه في البحر مغتربا ولم يزل جل قهارا وجبارا fajaatani rabbi bil alaa'i hab liya an auda lil barri رضلي كل من بار على النبي صلي بالتسليم بالكرما وارفع وزدني بعد الرفع أبكارا بحرمة اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عزمة ذاتك وكن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين وهب لكل من تعلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب للذي يهيمن وصل بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في سنداي هب لي في هذا الدعاء الإجابة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 ak li ci def ci ay benn lépp suñ borom nangu ko jot léegi Cheikh Mamadou Fadel ginnaaw bi mu jàngee xam ne bu noppi nag xam naa des na ko laaj kàddu yu néew rek ci ku mel ni Cheikh Mamadou Fadel yaakaar naa ku ko jàngal alquran wàcc nga li mu def ci alquranul karim li mu ci liggéeyal sëriñ bi lim bind ci ay kaamil ñeent fukki kaamil bindal ko sëriñ Touba ak lim taxaw ci ay nit ngir ñu jàng alquran ba mokkal ko ak lim samp ci ay daara ak lim formé ci nit ci ay borom xam-xam ñum daggal ñu dem jàngi ak yu bari yi nga xam liggéey na ko ci wàllu lislaam loolu ñu jàpp ne du ñàkk kàddu yoo xam ne sëñ Fallou dina ko ci eh, indi si diggante sëñ Fallou ak alxuraanul karim rawatina nag ni ñuy la ci kër gi. Euh, jërëjëf ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen sant bu baax a baax te di leen ndokkeel itam di am mbégte lool ci seen teewaay fii euh, waa ma Mafatihul Bichri ñëw ànd ak ñun bis bi nga xam ne bisub sant la bisub ñaan la waaye bisub fàttaliku la itam ni nga ko waxee léegi rek ñu di ci fàttaliku Cheikh Mahamadou Fadal eh, muy loo xam ne moom ci boppam da ko daan da ko daan def na ko daan defee it mooy bu bis bi masaani ñëw day dem fanaani daaru salaam la nga xam ne fa la ganee jamono bu xëyee ñëw yendu sil magam ci kër way juróom bu jigéen ci kër soxna Awa Bousso magam ju góor di sëriñ Afiya Ñang bi nga xam ne ñoo bokk soxna Awa Bousso eh, bu ñëwee sëñ Afe yendu koo teral eh, ba ngoon jot wala ba bëccëg mu ñaanal leen eh, ñu daal di dellu ba déwén noonu la ko daan defee bi nga xamee ne yàlla dogal na mu jóge fi nag ci la ko taawam yu baax yi tàmbalee Cheikh Mamadou Moussa Fallilu yaatal woo di ko woote waaye moom ci ndigal sëñ Fallu nag ci loo xam ne ndigalal baatin la lu mu ci jote ci tukki bu mu tukki woon ci àll bi ci Afrique central suñ fàllu feeñu ko ne ko na nga ma fonkal sama bis bii fekk na sax joxoon na ko ci ndigal ci ak nekkam su bis masaana ñëw wax na ko ci làmmiñum ñëpp dégg nañ ko ci ci audio yi ak ci vidéo daana ko woo mu am ay ñaan yu ci daan def waxtu euh, ci maanaam ci bis bi ci ci ci li nga xam ne mooy mooy guddi gi kon nag ci ci kaw ndigal lañ koy def euh, yàlla dogal ren ji ñu defe ko noonu ñu ñu ñu di ko def na ci ndigalal Cheikh Mountakha ginnaaw bi ñu ko siyaaree ndokkeel ko ci bis bi ci weer wi ñaanal ko yàlla yàggal ko fi te wér mu jox ndigal ki nga xam ne rakkama di jëwriñam di Cheikh Abul Baraka mi toogee jotaay Cheikh Amadou moom itam mu wóotu magam yu baax ya eh, Cheikh Amadou Moussa Falilou Cheikh Mamadou Lamine Baara ci liggéey bi yaa yaatal ko ci njabootu Cheikh Amadou gépp moo tax fii ci kër gii ngeen ñëw tey di kër Sëñ Alaaji Tamba eh, soxna Mamboussou mi nga xam ne dafa boo njabootu Cheikh Amadou Fadal eh, di di jéem a wéyal ndigal loolu nga xam ne moom la jële woon ci baayam te mu ci ay magam ba ci Cheikh Baraka mii kon loolu mooy sababu bis bi muy bisu fàttaliku ak ñaan ak sant euh, ni nga ko waxee nag bi ñu wéyalee ndigal li ndigal li ci jiitu mooy li ñu doon def mooy bu ñëwee ñu jàng alxuraan jàng xasida tudd yàlla def ay bernde xam nañ fi jamono ji toll tax nañ ko daan yaatale ñu xaw koo tënk ba nga xam ne li ci gën a solo mooy li ñu doon def rek diggante Cheikh Amadou Fall ak alxuraan nag ni ñu ko lañ ko laajee lu yomb waxtaane la ndax moom dundam gépp alxuraan la ndax koo xam ne ba nga xàmmee sa ndeyjoor ak sa càmmooñ lañ la jébbal dala dala sa sa wéyjur bu baax ba Cheikhul Khadim dalal alquran Sëñ Tuubaa moo leen dalal moom moog Cheikh Moustapha magam ju baax ja ak seen bokk yeñ maase loon jamono ci kër Sëñ Son bu fii ki Daaru Rahman lu jiitu muy dem mbaki Baari bi leen dalalee itam ànd ak ñoom dem mbaki Baari ba mu leen dalalee daf leen wax ne li li ma leen sas ci alquran ji ak ci xam-xam bi du dara lu may na ngeen koy xool ci bët te du ko wax seen làmmiñ mokkal gi ak ñàkk fàtte gi man maa leen ko warloon loola sëñ sëñ Tuubaa leen ko warloon moo tax bi mu ànd ak ñoom ñëw ñëw euh, fii di Mbàkke Baari di nekk ci wàccaayu tukki bi tukki bi géej gi ñeenti weer wala lu manqué la fa def dem bàyyi leen ak maam Thierno Ibrahim seen seen baay bu baax boobu ak sëñ daa Abdourahmane mu jàngal leen alquran ñu teel a wattu lool ba demee ci woy naari gànnaar bi waxtaan naa ko bu yàggul rek ci bisri ma ngi cey wax ne Cheikh Amadou Fadal xel mi dafa teel a dafa dafa teel a ñor mu teel a ñaw ba ñi ko daan jàngal sax dañ daan wax ne moom de daa mel ne daa xam li ñu koy jàngal lu jiitu mu koy jàng waaw mu jàng teel a mokkal bi sëñ bi ne ci géej gi mook Cheikh Moustapha watt nañ alxuraan ba bind ay kaamil ba bind kaamil lu ne bind nañ benn kaamil bi sëñ bi ñëwee ñu wéyal loola sëñ bi soo soo soo boog ñoom ci njàngum xam-xam ñu jaar ci maam Thierno jàng ci ñoom ci moom lu bari sëñ Samadou Faara jaar na ci maam Borom Saam nga xam ne mooy magi mag mu jàngal ko wax na nett nettali na sama benn wayjur ne ko maam Mawarum soxna jaara moo ma jàngal ba alfiyat ibnu malik di tàmbalee ci bopp bi ba ci baabu naati moo ma ko jàngal léegi des maagale ko ci maam Thierno maanaam ki nga xam borom daaru kon jaar na ci ay borom xam-xam maam Thierno euh, maam borom saam sëñ Mbàkke bu su nijaayam ji moom itam jàngal na ko yooy yëpp boo demee ci téere bi ñuy wax Nuzhatun Nadim te alawi def ko da ko ci fekk kon diggam ak xam-xam ak alxuraan ndax alxuraan mooy ndey xam-xam yi lu lu mu teel a ta lu teel a tàmbali la bi mu bi mu nekkee ci tarbiya gi itam Sëñ Tuubaa di leen tarbiya ci liggéey xidma da caa boole woon ci xidma boobu li ca ci jiitaloon mooy ñu koy jàngal alquran ñu ñu bokk ci daara yi kaamil ji di jàng waaye bokk itam ci di bind bokk ci tarbiya gi itam ñu bind ay kaamil moo tax sëñ jirim suñu fàll daana nettali suñu fàll nee na ko lu mu néew néew néew bindal naa Cheikhul Khadim ñeen fukki kaamil waaw ci loxoom kon xam nga kooku digg ma alquran kon dafa wéy rek dégg nga di law daana defit bi mu sañcee ndindi en 1913 ci ndigal Cheikhul Khadim saa bu bët sebbee day tàmbali am mbayam di liggéey liggéeyu tool waaye da koy booleeg tàmbali mbindum kaamilam bu liggéeyi tool yi noppee fekk kaamil bi àggal mu boolee lam ci amee ca mbay ma ak kaamil bi dem jëbal ko Cheikhul Khadim dégg nga njaareem loolu def na ko ay at diggante 1913 ba 1927 loolu la doon def ba ñu leen sëñ bi joxe ndigal nag ci 1925 ñu war a taxawu ndigalam li nga xam ne mooy jumaay Tuubaa ji bi mu taxawee ci jumaa ji ba jumaa ji àggit dafa daal di wax ne léegi nag wàccoo na ma ak ndax tabaxal naa leen seen jumaa fu ngeen di jaamoo yàlla ponk bi gën a màgg ñu fàttaliku ne ponk boobu di ponk bi lislaam bi gën a rëy muy julli juróom mook Cheikh Amadou Fadil ñoo bokk guddi gu ñu wàcce ni mu ko daa waxee rek Seydina Jibril sallallahu alayhi wasallam dañu lay rek mën a cëpp eh, maanaam dafa riñaan dem ci kaw yéeg moom mu wàcc mu kon tabaxal naa leen jumaa bindal naa leen ab téere muy muy ab kaamil kaamil boobu ba mu koy móol daf caa waxoon lu am solo dafa ne woon damaa bëgg su ma fi jógee bàyyi fi loo xam ne dana ma jariñ fee ma jëm xoolal lool li mu liggéeyal Sëñ Tuubaa li muy bari bari ak jaamu yàlla gi li muy rëy rëy gisu ko xeeb na ko ba ne damaa bëgg bàyyi fi téere alxuraan boo xam ne su ma fi jógee dañ koy jàng tuyaaba gi dama fekk foofa en 1963 bi jumaa ji noppee lu jiitu ñu ko ubbi dafa jël ay ndaw yoo ne ay taawam yooyu ma tuddoon ñoo ci sëñ Modou sëñ Baara léegi sëñ Xabaan booba tuut tànk la ci saayir sëñ Daam Dramé ak sëñ bu Safoor jox leen kaamil boobu kaamil boobu moo def ci ay copie yu bari nag ak téere sëñ Tuubaa yi téere xam-xam yi di leen damaa bëgg ngeen jaaral ma ci réewi naar yi di ko daalee fii nga xam ne moo gën a jege muy Maroc Liban Égypte ba Arabie Saoudite fu ngeen fi dem kilifa gu ngeen fekk borom xam-xam bu ngeen fek ngeen joxal ma ko kaamil bi joxal ma ko téere sëñ Tuubaa yi te invité ma ko ci ubbiteg jumaa ji nga xam ne dem nañ ba Égypte fekk ba Jamal Abdou Nasser ñu jox ko invitation bi jox ko téere yooyu te téere kaamil alxuraan bi ak téere xam-xam yi ba am na ci ñoom ñoo xam ne teewee nañ jullit ak jumaa ji maanaam bi ñu ubbi jumaa ji ñu ngi ciy nettali sax ne sëñ Maamun ma ma sëñ Fall nee na ma sëñ Fall ki dëddu àdduna gi ak wan ginnaaw àddina xam nañ ne bi jumaa gi noppee da tabax bii réeri ak a muy rafet rafet ci néegu ñax la dëkkoon këram seng la woon wala sax sàkket bi Jamal Abdou Nasser yónnee ndaw loo xam ne boobu jamono moo jiite al majlisul ala li suunil islamiyya conseil supérieur des affaires islamiques bi nga xam ne moo nekk Égypte mu ko pour mu ñëw euh, ñëw seet sëñ Fallou waraale réew julli ñu néew doole pour dimbale bi mu ñëwee fekk Cheikh Amadou Fadal ci biir néegu ñax bi mu laaj ni ana xalif général de Mouride ñu ne ko mooy kii mu ne kii jumaa ju réy ju rafete nii ba na ci néeg bi nga xam ne boo ko son ak meloom wi du xalifatul maanaam murid waaye xalifatul muslimin la waaw kii dafa wutu jullit ñëpp bi ñu waxtaanee suñ fal teral ko ba mu war a dem mu yëkkati deux cent mille ci boobu jamono jox ko ko ne ko yóbbaale ko mu ne ko man man sëñ bi ñëw ma fi pour xaalis jamaal daf ma yebal pour ma ñëw wër léewi jullit ñu néew doole ci wàllu lislaam ñu jàppale leen dimbale leen waaye man lii nga may jox ni soxla ma ko suñ fal ne ko waa xam naa ko waaye wolof dafa ne domp domp ci sot la bokk te yéen boo demee ci réew ma ca ci Égypte fa ñu wax naa ay soldaar nga fa di ay julit di xeex ak yahud yi nekk dégg Israël muy juif yi damaa bëgg nga yóbbaale xaalis bi boo demee nga jox leen ko su ngoon jotee ñu jënd ci café naan ci kafe ngoon <laughs> su ko dee bu nekk samak sot ci xeex ba ñuy xeex ak noonu lislaam yooyee waaw loola daal koy marqué lool muy kon koo xam ne digg ma alxuraan sëñ bi boo ko doon waxtaane man nga fee kii moo tax na lépp lu jàpp nañu lépp luñ ko defal rek ndax ndax digg sëñ bi rek la diggan sëñ Cheikh Amadou Fall alquran mooy diggan Cheikh Khadim alquran mooy diggan jaboot sëñ Tuubaa gépp ak ak ak dégg alquran mooy alquran moo doon léppi sëñ Tuubaa bustaani kitaabullahi la wax sama tool mooy alquran moom Cheikhul Khadim bu nit ñi xëyee jëm ca tool yi mu ne man maa ngi xëy ci sama tool mooy jàng alquran fu ma tool dama koy jàng adlu kitaaballahi hay sukunt yaa kitaabal karimi anta habibi waaw ah, dégg dégg nga kitaabu ka lii kansun lu ne lu ne wax na ko ci dem na ba ne sax ci alxuraan laa jaare ba jege laa jaare ba jege sama borom moo tax nag njabootam gépp ci bëgg al alquran ak liggéeyal alquran ak al alquran ci la leen nàmpatal ci la leen yar kon Cheikh Amadou Fadal bu ñëwee mel ni laa xarwa kon nag ñu ngi ciy ndokkeel ji din ñëpp di ñaan yàlla ñu yàgg koo fekke yàgg ko teewe di sant ñu fi teew ñëpp ci turu soxna si ak turu njaboot gi yëpp ñi fi ñii ngeen fi gis ñëpp ñii suñuy rakk lañu ñii suñuy doomi nijaay la ñii nekk suñuy doomi bàjjen kilifa yaa ngi ñëw di siyaar ak njabootuk pas-pas gi nga xam ne ñoom ñooy waa waa gi ak ñi ay wëllëre yi ak kóllëre yi nga xam ne ñooy bokki dëkkandoo yi ñëw di siyaare si soxna si di siyaare si njaboot gi ngir jokk bokku lislaam googu kon ñu ngi ñaan subhaanahu wa taala mu nangul ñu te lépp luñ fi ñaan yàlla nangu ko te ful ko ñu yàgg fee teew yàgg ko ànd ak yéen di jeexal nag ki sant leen bu baax nag yéen waa Mafatihul Bichri TV ndax teewaay bi ngeen fi teew euh, xam nañ ne xat na waaye sëñ koso man naa sax sëñ ma jàmm ma nga xam ne moo ne ca kaw ne ca ca ca Amérique nga ca Denver mm. ah rakama waaw sëñ Mor mu ngoog sëñ ma jàmm sama xarit lool di jàmbaar lool ci liggéey bi ñoo ngi koy yóbbante kon cant goo xam ne ñu ko jaarale ci yéen di ko sant di ko gërëm ndax ci ñi tasaare mission Sëñ Tuubaa bokk ndax jumtukaay yi dañ ko soxla Sëñ li mu liggéey faaw ñëpp ci war a jot liggéey boobu Cheikh Amadou doon def di tasaare mission ci ay xam-xam ci téere xam-xam ci alxuraan yéen ñi da ngeen ci am wàllu wurëy te yéen a ngi ko ciy bay kon nag euh, Bichri TV ak ak bépp seen bu mel ne moom ci seen yoon wi seen i lislaam yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk leen dëgëral leen ba nga xam ne fa bëgg a àgg ci tasaare mission Cheikhul Khadim mission l'islam da ngeen ko da ngeen ko am da ngeen ko man te du am benn gàllankoor lépp nekk ci ngërëmal Sëñ Tuubaa ak tawfeex suñu borom ñu koy ñaan di leen sant bu baax a baax tudd soxna si tudd njaboot gi yëpp ñaan yàlla ñu teewe ko at yu bare bari te liñ fi ñaan it fas ci mbas mii ñi nga xam ne moom la ñuy dund Cheikh Amadou Fadil nekkoon koo xam ne ku jubóo woon ak boromam la Sëñ Tuubaa xam ne woon seen faat ko ñun ñëpp Euh, loolu xëy na ma naa ca bañ a sori ndax xam nañ ko waaye ñu ngi ñaan ci barkeem kon barkeem li xëy na nas ko jooju mu defoon nga xam ne jamono metti woon tax mu taalif xasida Cheikh Moustapha taalif xasida Cheikh Amadou Bachir taalif xasida seen xasida yëpp soo ko méngalee muy benn di wane naqari jamono ndax boobu ñu ngi ci crise booba fekk na sëñ bi di fi doog a bàyyi ko adduna bi ne ci crise yi di année 1929 jàpp maanaam 1930 ñu war a tàmbali jumaa ji jafe-jafe am. taalibe yi ak kilifa yi ñëw ci ñoom ñiñ yaakaar seen baay fi nekkoon ñu yaakaar ko ñu ñëw ci ñoom ne leen bu ñu sañoon ngeen def tawassul ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa yàlla dindi ja maanaam jafe-jafe jamono ñu daal di ñaan suñ borom mu dindi jafe-jafe jamono kon bi mu toogee rek la ne lépp luy jafe-jafe jeex na xam nañ ñi ci mujjub deuxième guerre mondiale la toog waaye bi mu rek la woykat boo xam ne qad farihat wa ahlu Touba is tawwajuha taajaha al nee na bi mu toogee waa Touba dañoo bég bégoon nañ naka jekk waaye dañoo bég gën a bég ñooñ Touba Touba dafa Touba ci boppam moo njëkk a bég waa Touba bég hmm. bi nga xamee ne tegal nañ ko ndëppal xilaafa gi ci boppam ndax xam nañ ne xéewal ñëw dégg nga jàmm ngi ñëw barke ngi ñëw kon ñu ngi ñaan ci bar Cheikh Amadou Fadal jafe-jafe yi àdduna yi dund Sénégal di ko dund comme àdduna bépp yàlla na ko yàlla jeexal ci jàmm dàq fi fitna andi fi naataange kenn ku fi teew ku ne ak ku amoon yéene teew ne yàlla defal la lu sedd sa fajal la sa aajo ñu teewaat fi nag ni déwén te kenn baña a kenn bañ a wuute ci barke Cheikh Amadou Fadal wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wax dëgg yàlla waxtaan wi am na solo lool ñëw na bu baax ci Cheikh Mahamadul Fadal ak alquranul karim jaar ci tënk bu gàtt boo xam ne buñ ko jàngatee dëgg-dëgg dinañ xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon rek wala Seydina Aïcha dañ ko waxee ne lan mooy jikko yonente mu ne kaana xuluqul Qur'an wala mu ne euh, dafa nekkoon alxuraan joo xam ne day dox ci kaw suuf comme Cheikh Mamadou Fadal moom noonu la meloon waaye mu jokk ci itam yaatal gi mu yaatal liggéeyub sëñ Tuubaa bi waaye ñëw ba nga xamee ne sëñ Fallu jubóo ko ak boromam ak bis bu tedd bi nga xamee ne mooy màggalu Kazu Rajab histoire bi fa bàyyi ko Cheikh ci sëñ Afiya Ñang magam yendoo ak moom ba ngoon mu dellusiwaat Tuubaa ak bi nga xamee ne dem na ba jox ci sëñ Modou Bousso Dieng ndigal ak bi mu fi jógee fee ñu sëñ Modou bu Dieng kii baatin ngir xamal ko màggal gi jox ko ci ndigal mu ñëw woote ko euh, maam rakkam yu baax yëpp doon ko woote alhaaj Mamadou Amine Baara ba ci sëñ bi nga xam ne moom moo fi nekk tey yàlla fi yàgg loolu tànd ak wér kër gi itam Tamba ak ñoom ñi nga xam ñooy njaboot gi sëñ Fallou Bousso nekk ci bopp bi ñuy màggal bis bii di ko màggalee ni nga xamee ne noonu la sëñ Touba waxoon ci jës bal xuluub te mooy taasimuhu bi ci di ko màggal ci sunna ci jàng alxuraan jàng xasida ak salaatu ala nabi ak lépp lu baax rek ak bernde ak ziyaarante ak jokk ak bokk na ko sëñ Fallou waxe woon ca xutbaam ba ca màggal ga noonu daal lañ koy defee mbokk yi kon ñu ngi sant baax di gërëm bu baax di sant bu baax sëñ Fallou waxta waxtaan woom solo bi di sant sëñ Mor mi nga xam ne moom lañ àndaloon ci caméra bi di sant mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy topp waxtaan bi yëpp rek di ñaan borom bi tabaaraka wa taala ñu fekk at yu bëree bëri te at mu ñëw rek dàq suñ borom jëlee fi mbas mi andi fi xéwal yu bëree bëri yàggal kilifa yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu